1K Squad. Voici la vidéo 1K Squad. Right now. Hey DJ, do it. Nigga, we trapping. Nigga, we trapping. Nigga, we trapping. Woo! The old city west side, nigga. The old city west side. When my niggas and my hoes in the trap. In the trap. Some niggas bitches getting ready for the man. We the man. Now we trapping. Now we trapping. Now we trapping. Now we trapping. Now we trapping. Now we trapping. We ain't rapping. We trapping. We trapping. We trapping. We trapping. We trapping. We trapping. We trapping. We trapping. We trapping. We trapping. We trapping. Trapping up in our mama hoes. We trapping. We trapping. We trapping. We trapping. We trapping. We trapping. We trapping. We trapping. We trapping. Trapping up in the mama hoes. We don't fuck with this nigga and fucking with you. But we got a lot of hoes. We got a lot of hoes. We trapping, we trapping, we trapping. Trapping up in the mama hoes. We trapping, we trapping, we trapping, we trapping, we trapping, we trapping, we trapping. We trapping, we trapping, we trapping. Trapping up in a mama hoe. Okay, the team, we be living your dream. Nigga, fuck what you mean, we eating a bean. Bitches are what we doing. We don't care about niggas, we more the grain. Bring out the goat, take your bitch you with me after my show. Hold up, you know, I'll be like it's back in this bitch. And they bring out the heat, nigga, back in this shit. And I'm my kid like, fuck you coming with. Yeah, I'm dome me. Nigga, fuck what you talking about. Y'all were niggas that fuck with me. I simply sample my fucking grind. Yeah, I'm getting it, nigga, I'm I doing the fuck frame. keep real, you ain't rich. Stay clean and you're straight. Neck that you ain't getting bitch. young boy with many chick. They shake boy to get dick. Hell nah, you weak bitch. Hell nah, you weak bitch. Money dance I don't do. Nigga tripping with fake shoes. I'm so amazed and fabulous. Put a nigga up on the They know rules. You fuck around, your funeral. Yeah, yeah, yeah. Pussy nigga, I'm the general. Yeah, they talking, I'm doing. They lose it, I'm getting. I'ma sign you a city. Take a bitch with me. You know I be getting it. Yeah, I got black and white bitch. I might say I'm a boss. Styling on these motherfuckers. Lamping When my niggas and my hoes in the tram. In the tram, Some niggas bitches getting ready for the man. We the man, now we trapping, now we trapping, now we trapping, now we trapping, now we trapping, now we trapping, we ain't rapping. We trapping, we trapping, we trapping, we trapping, we trapping, we trapping, we trapping, we trapping, we trapping, we trapping, we trapping, trapping up in our mama hoes. We trapping, we trapping, we trapping, we trapping, we trapping, we trapping, we trapping, we trapping, we trapping. Trapping up in the mama hoe. We don't fuck with this nigga and fucking with you. But we got a lot of hoes. We got a lot of hoes. We trapping, we trapping, we trapping. Trapping up in the mama hoe. We trapping, we trapping, we trapping. 1K squad, salam alaikum. Come on, Mudama. What's your name, man? T-Bows. Huh? T-Bows. T-Bows. Yeah. Yo, what's up? What's your name, man? Alun Montezo. Alun Montezo. Yeah, yeah. Where you from? From Germany. From Germany? Yeah, yeah. yeah from Germany. Mm. Uh, you were born there? <laughs> You're born in Germany. Yeah, he's born there. He's born in Germany. Yeah, I'm born, yeah, in, born in Dakar. Dakar. Yeah. yeah. Uh, how long have you been here? Like two years. I've been there two years. He's been there like six, six, seven years. Yes. Yeah. Ah, uh, boy, it's a video ground. <laughs> it's so hard. Yeah, man, Thanks. we're trying. Huh? We're trying. Huh? We're just trying. You're just trying. Yeah, You're not trying. trying. You're on the level. Yeah. You on top of Thank the level. Thank you very much. Huh? Thank you very much. Uh, from Germany. For real. Wie heißt du? ich heiße T-Boss. Ja, heißt T-Boss. Wie heißt du? Ich heiße Aliu. Ja, du heißt Aliu? Ja, genau. Ja, woher kommst du in Deutschland? Äh, ich, komme, uh, ich uh, komme aus Dortmund. Dortmund? Ja, ja Dortmund Football Club. Yeah. Ja, Dortmund. ja, ich, ich heiße Marco Reus. Marco Reus. äh, <laughs> äh, The song is so lovely. Yeah, euh, thank you very much. Le, le, tube est magnifique. Euh, dans sa composition, c'est un disque carrément. non pas encore ñu ngi ci job bi mais genre lii benn track la woon nii ak ñu def vidéo xam nga pour def promotion bi et tout. ah mais grand promotion bi bu dee bii ngeen koy defee bu àll bi génn gars yi. <laughs> ah gis nga de. ah ni ngeen di essayé. gis nga de gis nga ah euh, lan moo leen indi Dakar. waaye en général dañ daan mais cette fois ci amoon woon fee ci game bi foofu la ñu gën a amee tout cette fois ñu ñëw gars yi xam nga rek boo nekkee sénégalais gars yi duñ la ci bàyyi gars ah. yi nañu waaye faw ngeen def seen name fii faw ngeen commencé dawal seen promo ci Sénégal parce que ay doomu Sénégal ngeen dul dara ah. et tout quoi loo tax ren ñu ñëw commencé dugg ci média yi tout quoi ok ah, Aliou yow da nga da nga da nga da nga judd foofu màgg foofu mais yow yàgg nekk ci hip hop bi euh, man euh, dama juddoo foofu après si lañ ba mu amee cinq sama sama yaay ma Sénégal. après ma toog fii ba def BFM. après sama yaay yóbbuwaat moom moom nag moo doon rab. ok man depuis un an laa dugg si game bi. depuis ci game bi. Hmm. Hmm. est-ce que gars yi euh, yéen a ngi gagné foofu respect bi ba. waaye foofu moom moo gën fii quoi ci côté people xam nga. foofu la ñu yi gën a xamee xam parce que. fii xam naa ni ci mois bi sax lañ commencé dawal buzz bi et tout quoi. Ah. ni ko gars yi di waxee fii. ok euh, foofu lan ngeen di gën a def parce que am foofu foofu yi nda nda club ngeen lay gars yi di gën a joué. wala léegi festival d'été yi. ah mooy gën a dox. Euh, yéen a ngi play lu bëri. si ñu ngi play lu bëri ñu ngi play ñu ngi play ñu ngi dem ci club yi ñu ngi joué ci concert yi. xam mm. ñu ngi am ay feature ak artistes et tout quoi. voilà. Mm. Euh, là c'est en anglais vous avez pensé à faire quelque chose un peu en allemand en français en wolof. euh, pour, pour, ou bien il vous faut identité comme celle-là pour exister carrément là-bas waaye xam nga genre ñu ngi foofu li ñuy def ñoom genre allemand la ñuy làkk mais anglais moom c' est international. gaa yëpp koy consommer. même instant bi bu ñu doon làkk allemand bu ñëwee fii peut-être mu doon problème boo xamante ni sax. yàlla yàlla gars yi dégg nañu. ah eh, ñoo ñu ñuy def angle nga xam ne international lay doon. ñëpp si xaj quoi. ok euh, mais ñoom dance moo gën a nekk seen musique dance floor. Euh, moo gën a nekk seen musique euh, foofu pour pour véritablement bien passer. Ouais. électronique quoi je veux dire électro. waay waay waay waay am na public boo xam ne moom loolu rek la ñuy la ñuy la ñuy la ñuy gët quoi mais nouvelle génération bi fii rek. Mm-hmm. xam nga ñoom tamit fii la comme. c'est normal. normal c'est normal ñu ñu ñu jël ko parce que ñun ak ñoom ñoo bokk benn génération et tout xam nga. c'est ah. normal ñu lay cons quoi. ok ah fu fu dëkk Dakar. man ah. maa ngi dégg fa Pierre Parcelles. Parcelles unité. 15 ah. waaw ah, yow. maa ngi Maris. Maris. Hmm. Parcelles Assainies unité 15. waaw Pierre. ñun Yëmbal City. Yëmbal <laughs> <laughs> <laughs> you know city man. <laughs> Ah, alors ah, am ngeen fi spectacle balaa ngeen di dem. si am nañ fi ay spectacle d'ailleurs peut-être tey am na benn club bu ñu war a jouer. Mhm. le 12 aussi on a benn spectacle foofu noonu Gorée quoi. le 12 mhm. waaye. Ouais. ok ouais. Euh, qu'est-ce qui vous a beaucoup plu euh, dans le hip-hop à Dakar lan moo leen gën a neex dans le hip-hop in the game lan moo leen gën a neex. waaye ñun mën naa ne dañoo yéex a commencé sax defal def promotion fii quoi parce que xam nga déjà des fois da ngay ñëw am yoo dégg ñu la genre li ngeen di def euh, àndul la fii wala genre gars yi mun duñ ko ñemee tout quoi. xam mm-hmm. loolu tax moo ñu xawoon bloqué mais comme bi ñu ñëwaatee nii gis nañ ni loolu mi ngi changé nang nag gars yi ñu ngi accepté. Ah. yenn yenn clip yi ñu ngi accepté yenn paroles yi et tout quoi. Ah. Ah. Euh, loolu rek mooy seen barrage. waaw loolu moo nekkoon jàpp loolu moo nekkoon jàpp quoi. Euh, qu'est-ce qui vous plaît le plus lan moo leen gën a neex fii ci euh, hip hop bi dawal Sénégal lan moo leen gën a neex. lu ma gën a neex parce que yaa ngi dëkk Allemagne. ah, ah dëkk Dortmund. Mm. ah jóge foofu ñëw fii euh, tey yaa ngi yaa ngi war a waajal spectacle et tout quest vous plaît le plus. xam nga ñun gaz seen lañ jóge. waaw pour mënta nekk fii léegi ñëw si waat. yaa moo tax ñu ne xaar ñëw teewal gaz seen. Ah. ndax mooy yoon. Ah, leen gën a ah, neex mooy teewal Galsen represent represent hmm. d' accord merci beaucoup et puis xam ngeen Kals Kals Kals dana gaan bi def hip hop RFM il faut ngeen gis ak moom Kals ak Olibi foog ngeen gis ak moom. ñu teg leen ci raay ak booy buzz events yi. xam nga comme ça ñu teg leen ci raay bi. affaire bi gën a gën a liis. promo bi gën a gaaw gën a daw. ok all right thank you. et puis euh, j'ai été très séduit par la vidéo. merci ah, seem like like like the new in the street in New York or like in the street in Harlem. thank you very much thank you very much really well done. thank you very much really well done. thank you merci beaucoup. merci beaucoup merci beaucoup 1K Squad.